citoyen bu ci nekk war nga mën a jug euh, wax comme li ñuy wax nii ñun puisque fii Sénégal toll ku ne xam na ne président de la République Macky liggéey na lu bari ci inondation depuis mu falo en 2012 ak léegi tey ñu yegg yàlla wàcce taw boo xam ni mënuñu ko natt ba am ay kër yu nekk ci mbënn mi euh, foofu ñu toll sénégalais yëpp yeewu ci di ko gis li ñu na ñun fii à Thiès suñu dëkk dafa mën naa wax nii dañ ko dëkkee ba mu fees mu am benn site bu nekk Mbour 4 wala forêt classée am na ay Thiessois yu fa dem tabax fa ay kër nii nii ci illégalement parce que ñàkk fu ñu dëkk moo leen waral ñu yóbbu ñu dem def loolu euh, bi président de la république Macky la ñëwee Thiès ci KMS 3 bi ñoom génnoon nañu def ay pancarte wax président ne ko ñun dañu bëggoon ku régulariser fi ñu dëkk président wax gouverneur bi fi nekkoon à l'époque euh, ñu régulariser situation bi boobu ba léegi xam nañ gis nañu yëg nañu jéego yi ci président Macky Sall def ba fi ñu toll mu des décret présidentiel pour ñu déclassifier ko loolu nag suñu yeggee ci contexte boo xam ni wax nañ ni nawet sax am na ñu fi nangu seen kër ñun dañ ci profité génn wax président ne ko situation bii xew cees il faut mu décréter déclassifier forêt classée bu Mbour 4 comme ça Thiès waaye mën a am accès projet marché poisson bi ñu bëggoon def mën fa am projet nouvelle gare routière bu mën fa am Thiès way bari mën fa am kër ñi fa nekkon ñu régulariser leen fan yi ñu genn gis nañu descos dugg fa def ay arrêt pour ñu arrêter les travaux nit ñi di wëlbatiku dem di continuer ay travaux lool nak xam nañ ne arrestation mo ci top te kenn bëggul mu am ci suñu dëkk comme président de la République nitu jamm la bëgg na régler problème ci sénégalais yi ñun wa Thiès li ñu concerné moy mu jublu ci li déclassé fait from forêt forêt classée bi comme ça jamm mëna am fofu ñi nekkoon en ñi en règle mën a nekk en règle pour ñu régler problème mu Mbourkat forêt classé bi fu ñu toll nii 2500 familles ñi ngi fa nekk di xaar situation bi donc am na ñu doon génn wax waaye ñun Sénégal day mel dañuy tàmm ne ki nekk parti au pouvoir warul di génn di wax xalaatam ci réew te loolu président de la République bi giseewul noonu politique lii soñña la notre cher président dañ la koy ñaan que plus bref délai procédure bi fu mu mënti toll ñu accélérer ko mu gaaw pour nga déclassifier forêt classée bi pour Thiessois yi nekk ci ndox mi mën a génn am fu ñu dëkk bu déwénee bu tawee kenn du la wax fii dafa inondé